Hey everyone, tena laluma ma makeup. Gis this is my real face. Ah. Eh? Euh waaye dama am lu ma jaaxal loolu rek laa bëgg suma suma caame ñi lu tax góori african mënuñoo romantique loolu laa mënta understand Yen yen african gori yi yen yéen toju leen fen ah Romantic bi dafa des ba the only time you won la kerek rek xaaral ma wax leen benn gis nga suñ la bunti motobe. bi no baby bul woor yi xaaral ma ubbi la bunti motobe xamal ne bunti moto bi dafa am fault moo tax ñoo ubbil ma ok another one tamit soo gisee rek ñu xoog la and all that téye la di la di am not luñ buga. Hmm? three gori African. jabaram o the only time bu ko mun ikati ko si kaw rek mooy mu ngi yuuxu woy sama nde woy léegi tey ma wasin woy maa ngi dem léebo su booba woy bul dox bul dox la ikati that's the only time ñu ikati la fopla. la come on gentlemen. ah lii dafa war a gën a neex góori africaine nga war a àndal nga war a àndaa moom diina den ngay taka sa daala bi yan na bu daala bi nekka liis na nga ko liis bilaay yow doo gaaw ah, reer bi léegi tey foofu ñooñu ñu tëj duñ pare oh, ndanka bay loo nekka di def dangaa takk sa daala bi kay ma jàppale la <laughs> ñoo ñoo fi amatul de góor yi laa wax kay ma takkal la sa daala bi you know benn benn nag am nañ ay gentleman benn benn but romantique bi des na fe nag gur la du góor ñi rek tamit di ooyee seen jëkkër yi oo seen fiancé yi honey honey is very cheap how can you call your husband or your fiancé ah sa nuloo na nax neex nax nga amlo koo ooyee beneen tur amuloo dara loo ko ooyee lu dul honey ñaata bagage yu seer fi nekk loo xam ne nga pour mu nga ko ah bursu bi mu ngi fi nga ne ko bursu bi bursu bi moo ëpp kër yu yu nice nga ne ko suma bursu bi ah mbaa nga ne ko suma kanilaay gambe yëpp ñun xam ne du dee off light soo ko loolu daf ko apprécier mbaa ngeen ne ko suma Range Rover suma saaku maalo suma bidon yi diwlin yooyu yëpp dafa seer soo soo ko ooyee sa fiancé dafaa xam ne kii bugg na ma moo tax mu ma ooyee lu seer but honey yéen tamit to be honest honey ay ten dalasi la di jar ah sénégalais ne cent franc naka ngay xoolee sa séri kooku nag nga ne ko honey maay wax ñeenay sa dañ dee wa apple bàyyi leen di you know góor danga ko wan ne danga ko faale de koy ooyee ay Range eh, sama oto bu bees bi noonu nga koy ooyee mu apprécier ko ah appreciation dafa baax te li na yàq seen góor yi man de suma bos Range Rover a ko dee ooyee ah, Range dafa seer bi waaye yow téye leen ko foofu romantik bi dafa des nañ leen try ñu romantique ah góor ñi nag bàyyi leen ni ngeen nekke bàyyi leen ni ngeen nekkee di leen génne di soppi na seen jigéen yi lu nice nga gis ko waaye fekk ñaanu la doo ko def yéen foo leen tocc ah di leen a génne soo gisee lu nice dina gis iPhone 7 nga ne ah bii dee jag na si ay xaaral ma jëndal ko bii dee jag si Aïda xaaral ma ko waaye man maa ko jëndal téléphone bi su ma ko jëndalee téléphone beneen góor kool ko fa yow foo toj ah soo yow benn jigéen du la ko moom gu benn góor waru koo kool bàyyi li ngeen nekkee de romantique dafa xew dee leen romantique gis ngeen man mii Aïcha ci loolu lay dox déggu leen de ah xanaa neex